lewtati fire umi jamba yolana ko kanjo fappambe lewtati fire umi jamba jogima ko kanjo fappambe lewtati tatifié umi jamba yala na ko kanjo fapambe lew tatifié umi jamba nyogi nuyu nañ leen bu baax a baax ci Leewtoo TV ñaanal jàmm ak salaam ñu ngi fii ci euh, Maris ci kër Père Gaston Mbengue euh, fekke fi ab jataay ba nga xamante ne bii jataayu jàmm la ak salaam per gason ñu ngi lay nuyu. ngi leen di fay di leen ziare yéen itam di leen sant di leen gërëm. ñu bëggoon a xam euh, jataay bi lan moo ko waral. eh da a bëgg lu ngeen xam rek mais xam ngeen lu ko waral loola leen fii di it bëgg lu ngeen nett li ji rek mais jàmm rek a fi xew li ko waral mooy que. réeróo bu ndaw amoon na rek te réeróo bi lu koy indi mooy ay làmb ay ay niti làmb xam nga niti làmb moom mën na boole ku ne man xam naa bu baax làmb ji li fi nekk su ma doon déglu nit ñi sax dootuma wax ak amateur nga xam ne dañoo di fay sax dootuma ak ñoom yàlla nag dogal na aussi maam doom yoo xam ni sama doom la ma doomoo ko aussi muy Abdoul Aziz Ndiaye nga xam ne bëggul dégg dara lu mën a xari bëggul gis dara lu ma a xari bi affaire bi amee it mu woo ma ni mag ko père Thialis daal woo naa ko moom it moo sàkku sax gis Thialis parce que moom bëggul ki dégg dara ci man wax ko ni ma père daal dama bëgg a ànd ak Thialis ñu yow sa kër parce que Thialis sa doom la Aziz bi nga xam Thialis man maa jëkk a paas Thialis Aziz ko kii dafa promoteur la bu bees buy soog di ñëw ci làmb ji na ko jàppale donc seytaane nag dugg na ci seytaane làmb ji ñëpp xam na ko làmb ji ak coow ànd coow coow li sax mën naa bari ba pare nekk coow lu baax mais dafa nekk coow loo xam ni nit ñi ci la ñuy dund li ngay dund nag soo sañoon jàmm du fa am mook politique yam dañuy suñu sañoon ay tendance rek ay am politiciens yi ndax ci la ñuy dund nag ñoo war a xam suñu bopp xàmmee aussi nit ñi bañ a am considération ci yenn wax yi parce que lii ni woon coow li amul solo Gaston mu tëgg Balla Gaye Boy Niang fekk Boy Niang nekk ci contrat ak Calis euh, ca ba ma koy daaraan tëgg it nee waa kër Boy Niang papa mag manager mag Boy Niang yëpp dem leen ngeen waxtaan ak Calis boo pare mais li yàlla tudd kenn mënu la fexe ba am booba yàlla dogal na même su su mooy leen wax loolu loolu yàlla dogal na ñooñu danaa leen tëgg ma jox leen avance ñoom ba nu demee ca Calis it xëy na dañu waxante Calis bi ñu ñëwee man wa lan ma wax eh duma man lu dul gëm leen que waxtaan nañoo ak yàlla d'accord nañu ci lépp ma jël jox leen avance mais xam nga nit làmb rek calis euh, xanaa Gaston dafa bëgg a yàq sa combat bi calis do calis sa combat ba euh, combat Boy Niang ak euh, Tapha Tine lenn mënu ko yàq parce que combat la te mooy jëkkaam lu ko mën a yàq dara mënu koo yàq ñun dañ koy ñaanal dara bañ koo yàq ñu koy ñaanal combat bi bokk ji gën réussir ci àddina bi parce que xale bu jël alalam def ci làmb na ko nit ñi ñaanal di ko tegit ci yoon woo xam ni dara du ci dara du ko ko yàqal mais taxaw pour sa benn intérêt benn cinquante mille wala cent mille booy am rek tax nga koy monter di ko waxloo ak yéen waxkat yi it yéen yéen waaw yéen yéen ci yéen a raw ñëpp ndax yéen lu tas ci dëkk bi yéen a ko tas ah, mais père ci boole waay yéen a yéen a ndey mbil gi ñun dañ defar leen fi nekk waa defar defar yàq yéen su ngeen sayoon sax luy defar du am moom la ñuy def yàq rek ngeen fi nekkee yàq yàq ngeen fi nekkee donc yàlla sa ñu ngi sant yàlla bi nga xamee ni jaare na ci Aziz Ndiaye bàyyi Ndiaye rakam vraiment ñu defaraat lépp parce que comme ni ñu koy waxee Aziz ak Makan sama doom bi ñoom laa yemale képp li ma Makan yéene la ma Aziz yéene wala sax xëy lu ko raw buggul kay buggul dégg benn wax bu ñagas bu jëm ci man dox na ko yàlla suturaal na ko ba li mu doon dox lépp am na léegi li ci des mooy yéen defar rek a leen war da ngeen war di defar kon leen defar waaw gën leen koy yokk bokk ca gën di defar di ñaan yàlla combat Boy Niang bi ak euh, Tapha ñu àgg ci ak jàmm le 8 août mu nekk une réussite totale bañ ci am benn jafe-jafe lépp réussir yàlla jox ko beneen combat mu nekk ci parce que nattu la mu yàlla teg rek nattu la dama koy faral di wax daal nattu la bis de génn nattu bi tegee ko woon na ma pendant presque cinq six ans waat na ma yàlla kenn du ko coow moom ma ñëwaat mais daal jàmm rek daal bi nag maa ngi koy gërëm ci d'abord grandeur bi moom parce que Aziz mënoon na ko wax mu ne ko loolu diis na ma parce que Sénégal dafa bari nit ñu rëy ci rëy baaxul dafa bari nit ñu rëy mënoon na ko loolu diis na ma Aziz mënoon naa am père naa wax ak moom ci téléphone rek parce que bii wax nañ ci téléphone man ni loolu doy na mais am na grandeur bi ñëw ba sama kër toog fii ñu nekk reerandoo defandoo lépp waxtaan lii rek war naa yar naafeq yi ak seytaane yi ci làmb ji war nee na yar de naafeq yi seytaane yi yarul leen ca bàyyi nit ñi seen jàmm ñu liggéey ndax Sénégal sunu doom yi ñooy ànd ñooy bëggante ñooy sëy ci kenn mënu ci dara donc nan bàyyi affaire yooyu fu defee rek seen seytaane ànd ak iblis yàlla indi ay nit ñu baax yu ko defar abis la jóge bërgi dem mook bàyyi tey di àjjuma di bis bu sell donc euh, ñoom la yàlla ànd du ànd ak seytaane yi wër làmb ji seytaane yi ci làmb ji soo ngeen gisee ma dàq presse bi yëpp site yi site yëpp maa leen dàq ci làmb dama leen a dàq parce que ay seytaane ngeen père bul wax loolu waaye loolu laay bañ a dégg. mais dama leen a dàq dama leen a dàq bi boo na ko bañ a dàq maa ko wax. <laughs> waaw léegi euh, gannaaw gannaaw ay jàmm euh, wax nañ ko sànq euh, ñu gis nga invité. ñu gis nga sit yi après la ñuy comprendre. après après après danañ comprendre lu bëri parce que ci kanam danañ comprendre parce que man 92 laa nekk ci làmb ji presse di ma exploité télé yi sit yi nangam nangam man gisuma ci dara gisuma ci dërëm te nag si teg lépp ci bokk yem kenn ubbiwu ko ci Mali Pro après nag la nit ñi comprendre tey dana nu Gaston dafa soxor Gaston dafa li mais Gaston day liggéey man damay liggéey li ma li may def nii li may contrôler sama lamb je l'assume mënumaa tëgg lamb mille sites nekk ci biir comme lamb ji kenn du gis dara ñoom ñuy wër di jëkkante Google ak kii YouTube. bàyyi gis nañ la yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi site internet yow tamit. waaw léegi parce que maa moom sama matière dewuma jéefu kenn sama matière lay jaay man maa investir sama matière wu indi matière yu ko jar ma ubbi sama site di ci def di ci liggéey. bu yeneen làmb yi amee dangay ngay dem. man non non dewuma fen man samay site site benn bi sit d'actualité la benn bi sama situ làmb la fenn laa demul. waaw. léegi ñu gis ne tamit Thialis mi nga xamante ne bii tey bokk na ci ñi waral jataay bi moom tamit yor na yor na organe de presse est-ce que mën nañu xaar Père Gaston lëkkaloo ak moom ci événement yi nekk ci kanam. loolu lu di gul la mais man kenn moo wax loolu loo xam ni xaw ma ndax naa loolu lu di gul la fi ñu toll dàq naa si yëpp. mën nañ ci am yaakaar. fii may waxee dàq naa si yëpp yaakaar nag moom war nañu koy mën a am tout le temps Thialis war naa mën am sax lu ëpp loolu lépp ci sama yëf sama kàddu gu mujj gi. di leen gërëm yéen itam malgré que ay yàqkat ngeen. baal dañuy wax yàqkat nag yow tamit. <laughs> mais maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment. lii sax baax na pour ni ñi. Ah, moom defar def ngeen jottali ko parce que tey suñu ko yemale woon fii rek ci ñun. kenn du ci xam dara kenn du yëg duñu xam sax nu mu demee. léegi nag ni ñi leen di xool suñu xoolee déglu dañu xam dañu ñun kat war noo yaru war noo siraat suñu bopp. parce que ñii ku dugg ci seen diggante waa làmb yi ba ñu génn ci seen parce que ku dugg ci seen diggante ëllëg ñoom ñooy ànd toog di waxtaan bàyyi nu ci biir ca man Gaston lu ma nit wax nag dama koy wax rek muy manager ba di amateur ba di keneen ku ñëw nett li ma dara ci promoteur dama koy wax da bu ma toogee ci presse danaa ni danaa wax danaa tudd sa tur kon mook man bu yeboo kenn bañee ñëw jubanti ba wax waaw ñu gis tey nga def mbaxana mu rafet macha allah mbaxane bi koo ko tudde xanaa caalis nga ko tudde waaw ba tey <laughs> kon baxana bi caalis nga ko tuddee quoi. man nga ko tuddee caalis <laughs> nga teg ko dëngal. waaw noonu ñu xam nga ñaxte nii nii lañ koy def. ko bàyyi ko mu mu weng. waaw la xam nga maa la ci charmé. léegi dama lay bàyyi nga nga wax nga waxtaan ak caalis. noo caalis kay waxtaan ak moom rek si ngeen ñëw waxtaan la lu ay ca Thialis ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay fay mbay Babacar di lay ziar di ziar fi nga ànd fekk ñu fekk la tey fii ci kër Père Gaston ñu bëggoon a xam rek lan moo waral euh, jotaay bi. waaw moom moom wax na ko dèjà du teggi amul tegg ñëwul sa moom wax ba pare ñu si wax parce que li wax noonu laay répété waat rek donc euh, incompréhension moo amoon suñu biir donc mu nekk suñu kilifa nekk kilifa ci làmb ji donc bu amee suñu moromu promoteur nekk tey jóge si làmb ji dox nekk doomu Gaston di dox jàmm woo ma aussi expliqué ma. te teggin na mañ mi nga xam ne maay maay xale maay doom ma dem fekk ko këram ñu toog ñu waxtaan donc loolu mooy fii ñu toog waxtaan jéggalu ko peut être xëy li ma wax metti na ko c'est normal aussi sa bàyyi boo ko tooñ war nga ko metti nga dem jéggalu ko loolu mooy suñu tànk ñu mën a jàpp ne ñu mën a jàpp ne geste bu noble la ba nga xamante ne bii yaakaar naa ak lu làmb yëpp a koy rafetlu ndax lu rafet la euh, mais euh, est-ce que nekkuloon lu jafe bi la ko Aziz di wax non naturellement amu jàpp mooy parce que <coughs> bu fekkoon dafa jafe kon man ni ma wax si vidéo bi gaw ma ko ma ne man jàppalu ma ko dara merawum ko donc tey bu fekkoon daw ma rek donc loolu ma amul amul du nekk lu dëggu li ma ko noonu mooy lu dëggu si man mooy merewuma ko amul lenn loo xam ne jàppal naa ko parce que ñun moo ñu yar xam nañ ko donc mais nag nit di nga état d'âme boo xam di nga wax lenn li ngay wax xëy na nit ki ni mu koy déggee mu nekk loo xam dafa dëng donc dëng na ñëw nañ comme en tant que doom waxtaan ak moom ñu ñu ñu réglé ko et puis ñu avancé maintenant <coughs> ñoom ñoom kilifa la ñu aussi si làmb ji ñun ñu nekk xale lépp lu ñuy tëgg wala loo xam ne affiche yu ñu taxawal ñoom dañu ciy war a taxaw jàpp ci parce que làmb ji soox na soox boo xam ne ñoom ñii mag rek ñoo xam ficelle yi ñuy xëy bala a tirer pour que ñëpp mën a bénéficier aussi loolu loolu moo nekkoon suñu tànk. est-ce que loolu wanawul ne da ngay daw pour làq di làqatu ci gannaaw. non daw làqu ci gannaaw mooy lañ mais ku am papa bu la mën a protéger kay nga daw làqatu waxtuma bu fekkee moom il est là pour protéger ñëpp mais en réalité sa pas c'est pas c'est pas ça c'est-à-dire que ñun xamuñu lu bon xamuñu lu lu rafet lañu xam donc bu waxee nit moom bu jur Aziz sax man sa yaay sama bopp nee na ma Gaston sa papa la amoo looy waxanteek moom du wax ba ngay tontu moom ba mu may woo noonu may wax ak moom si téléphone si sama yaay laa toog donc ñu waxee ko ko feneen mu ñëw wax ma loolu donc kon bu la waxee loolu nga xëy suba sa morom wala na la ah man doomu diw laa expliqué la doo def lu ànd ci parce que ñun waay jur mooy mooy suñu lépp sama yaay mooy sama sëriñ mooy sama lépp donc lépp lu ko neexul duma ma ko def donc bu ñëwee boo wax ma loolu rek donc ma xëyee suba am ku ne ma kii Tabaski sawar pour ñëw loolu moo tax ma sawar ñëw toog waxtaan te boo xoolee nii xam ñu benn programme ci. mën nañ jàpp ne léegi gannaaw ay jàmm. non ay amul foon sama jàmm jàmm jàmm moo fu ma sax non doon ngeen sànnante ay bag ay trace kay non wallaahi azim lu ma rus naa rus naa wax lu lu bon lu nit di ma jéppee sénégalais donc mais du du ma ko wax jamais lu bon nii moom ak keneen ku mënti nekk si si milieu bi mu bu baax tuddee la ko loo ciy wax waaw macha allah ñun aussi dañu war am dañu war a dañ ko war a sargal parce que am na lu mu def si làmb donc promoteur yëpp war na mën a conscient pour bokk ñu ñëpp tëgg benn làmb boo xam ne peut être sargal quoi sargal ñi nga xam ne nekkoon nañ fi am lu def si làmb ci waaw du man maa koy def mais promoteurs yi fi nekk yëpp ñoo war a ànd boole seen doole daf benn combat wala benn journée boo xam ne pour sargal anciens yi nekkoon parce que téye làmb ji moo tax ñu mën si ma am fit ba dugg ci waaw bu ñu nuñ ko dem téye rek ñun ñëpp duñ si xaj mais comme dem ne ba téye téye bu rafet ba ñu war a ñëw donc ñun dañ leen war a sargal. lan mooy kàddu gu mujj waaw kàddu mujj mooy di di remercier Aziz bi nga xam ne aussi dox na ci tànk jàmm donc remercier waa famille bi remercier ay doomam parce que samay moroom lañu mais xëy mënoon nañ ma woo téléphone wala wax lu nekk mais am aussi xam ni adduna mooy doxee noonu te xam xam naa leen te xam ne ne man euh, yar réew ma réew bu tax ma yàpp keneen di ko wax euh, état d'âme la woon donc di wax ni ñu ngi koy tàll suñu loxo. lépp mën a jàpp si affiche bi si làmb yi ñu jàpp ñu aussi lépp lu ñu ko mën a jàppale dinañ ko jàppale pour que làmb jëm kanam parce que lépp c'est dans l'intérêt de de la nga régulariser Tapha Tine Boy Niang tey. waaw ñu régulariser ñoom ñu jàpp ci ba ñu régulariser combat bi donc ça veut dire que tey jii affiche bi affiche yu ñëpp la donc ñëpp si mën a taxaw incha allah ba le 8 août Sénégal yi mën a kontaan parce que lépp lu ñu def pour amateur ak sénégalais yi la kese la waaw ñu ngi lay jërëjëf yow tamit merci beaucoup Umijang kajogi mangur kajo fatambe Leutati fie Umijang kanogi